question de droit c'est pas une question politique c'est une question républicaine xam nga sànq dama la wax ne bu njëkk ba bu njëkk ba déclaration provisoire musul am Sénégal ci constitution bi premier ministre dañ ko doon def de 1970 à 2001 nekkul ci constitution bi mais ku ñu namee nga dem def ko bon maanaam. c'était une tradition c'était une tradition républicaine. exact yaa ngi soog a génne mot bi tradition républicaine rituel te gis nga démocratie yenn saa yi. la tradition républicaine est plus importante que les textes xam nga lu ko changé dañuy def benn révision constitutionnelle rek changé texte bi mais y a des traditions républicaines kenn mënu ko changé c'est ancré c'est plus fort que les textes c'est une coutume dañ ko nommé février mars mu dem ci biir mars bi def déclaration de politique générale ku ñu demee nga def que lan la da ngay ñëw rek wax orientation yi. ak vision bi vision bi wax réforme yi nga xam ne da ko bëgg def jeex na. d'ailleurs d'ailleurs Abdou Diouf benn page la woon bu gàtt ñas bu gàtt la woon ci Lamine Loum la commencé rëy mu discours fleuve après yeneen premier ministre yi tamit ñëw si inscrire ci mais sinon mun na durer trente minutes non. mais Ismaïla c'est important nga arbitrer ce débat là. Mmh. premier ministre dafa ne tant que modifié wuñu règlement intérieur bi. suñ ko modifié via la constitution. intégré waat les disposition qui concerne le premier ministre nga xam dañu ko dindi woon à la suppression du poste en 2019 moom il va faire sa déclaration de politique générale devant un jury populaire constitué de citoyens euh, de professeurs et de partenaires techniques et financiers euh, du Sénégal député yi mu am ñu bari d'anciens parlementaires d'anciens ministres d'anciens premiers ministres intervenir ne dañoo war a modifier le règlement intérieur intégré waat ci disposition yi concerne le premier ministre pour permettre au premier ministre mu ñëw def sa déclaration de politique générale donc si je vous suis bien ñaari parti yëpp ils ont tort mon avis c'est que règlement intérieur bi ni mu mel ni mu ni mu nekkee ni fi nekk du obstacle pour premier ministre yow def déclaration de politique générale pour une raison très simple Amadou Ba muy def déclaration politique générale am règlement intérieur bi amul woon disposition relative au à la déclaration politique générale amul woon ay disposition relative à la motion de censure dafa ñëw def rek déclaration de politique générale mu pare ñu déposer motion de censure te xam motion de censure dafa métti ci gouvernement parce que da ngay tëj sa bureau ñëw toog toute la journée déglu député yi ñuy wax mais daf ko def amul donc loolu l'absence de ces dispositions premièrement n'est pas un obstacle que premier ministre ñëw def déclaration politique générale wax nga ko et je vous l'emprunte c'est une tradition républicaine c'est un qui se faisait avant qu'on le mette dans la constitution après de 2001 on l'a codifié on l'a mis dans la constitution c'est devenu quelque chose de fort et dans la hiérarchie des normes quand la constitution dispose on n'a même pas besoin parfois sauf quand on a besoin de certaines précisions de dispositions complémentaires donc suñ ko pour man constitution Hmm. donc à la limite demander au aux, aux députés ñu dugalaat délai bi délai de trois mois dans la constitution en imposant au premier ministre une obligation que la constitution ne lui impose pas pardon de la répétition ou wala dugg ci rapport entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif alors que loolu du vocation au règlement intérieur règlement intérieur comme son nom l'indique c'est règlement intérieur c'est une loi organique. oui c'est une loi organique mais règlement intérieur léegi nag bis bu premier ministre bi ñëwee nag ba dugg nag biir assemblée ah foofu nag affaire bi nu muy déroulé woo le temps de parole la distribution du temps de parole loolu nag c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale mais dans les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif le règlement intérieur n'a pas à intervenir deuxièmement le règlement intérieur ne peut ministre obligation que la Constitution ne lui pas loolu moo tax ci droit su ñuy def réglement intérieur que ce soit une loi organique ou bien une résolution comme en France le juge constitutionnel dafa war a jël temps xool réglement intérieur yi article par article voire disposition par disposition pour lan pour éviter que ñu profitoo à tort ou à raison de bonne foi ou de mauvaise foi ci réglement intérieur bi pour rogner des pouvoirs de l'exécutif ou bien pour imposer à l'exécutif des suggestions que la constitution ne lui impose pas donc pour man pour récapituler un loolu amoon ci règlement intérieur bi amatu ci parce que jotuñu ko ci dugal. et ce règlement intérieur est valable il n'est pas illégal. totalement valable il y a un bon règlement intérieur qui est là c'est sur la base de ce règlement intérieur qu'aujourd'hui l'administration interne de l'Assemblée nationale Ça, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée. Donc, il y a bien un règlement intérieur qui ne pose aucun problème. Deuxièmement, l'absence de cette disposition dans le règlement intérieur n'est pas un obstacle pour respecter une tradition républicaine, pour respecter un rituel républicain qui doit se faire lu mu gën a jege période bi ñu la nommé moo gën parce que moo soo defee dëkk soo suñu la nommé nga xaar six mois pour def déclaration pour wala u an non dès l'entrée en fonction da ko war a def mais nag Sénégal aussi il faut qu'on rationalise la déclaration de politique générale il faut ñu. woyofal ko woyofal ko ko yombal ko mu nekk loo xamante ni le premier ministre peut venir en deux heures de temps ñu réglé ko il prend la parole pour vingt minutes s'il finit les vingt minutes les soixante minutes qui restent les une heure vingt député député yi posé question. donc la proposition de loi bi nekk dans le circuit initiative bi elle pour moi elle est à la fois inopportune et superfétatoire et gëm naa ne sax mais loolu c'est juste mon point de vue de juriste que si le juge constitutionnel contrôle rigoureusement parce que ça c'est la Constitution qui le dit que la loi organique fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité obligatoire avant sa promulgation règlement intérieur dafa nekk loo xam ne nag foofu proposition de loi rek moo fu mën nekk parce que exécutif mënul def proposition ci règlement intérieur parce que yoonam nekku